man la Sidi Lamine Ndoye euh, nekk représentant du personnel de l'hôpital au euh, conseil d'administration de l'hôpital en même temps aussi nekk euh, le président des associations des donneurs de sant du département de Tivaouane waaw li tax tey jii ñu woote pour nit ñi def don de sant tey mooy que fan yi hôpital dafa manqué deret manqué deret bu yéeme dem nañ ba toq deret desu fi te nag hôpital ku wax hôpital wax deret hôpital mën na ñàkk lépp ba mu des deret bi loolu amee nag mu am ay autorités yu ñu interpellé nit ñu dañoo il faut ngeen yëngatu ci lañu jour def journée bii pour que hôpital bi am deret parce que deret dafa doon lu sacré deret dafa doon loo xamante ni nii alalu yàlla la deret kenn mënu koo defar mais aussi gisu leen fenn fu ñuy jaayee deret mais aussi gisu leen kenn koo xam dafay dem di jënd deret kon tubaab yi nga xamante ni ak ñi nga xamante ni dañoo màcc ci xam-xam toujours ñi ngi def ay recherche pour xool nu ñuy defaree deret te pourtant xam nañ li ko composé lépp xam nañ ko de mais loolu bu ñu ko boolee du nekk deret xam nga ndox tey li ko composé xam nañ ko boo ko joxee léegi nga am ndox mais deret li ko composé ñoom xam nañ ko mais bu ñu ko boolee du nekk deret kon deret dafa am sacralité sacralité mooy loo xamante ni yàlla daf ci teg loxoom loolu nag moo tax nit ñi war a def attention citoyen bu dee yaa ngi xëy di taxawaalu di dem nga ñëw hôpital indi sa jabar muy am muy accouché nga am koo xamante ni ñaanaluñ ko kenn dafa am accident nga ñëw ñu ne la deret amul ngay kaas lu tax deret amul ah amul leen sax deret est-ce que yow moom di wax loolu est-ce que yow mus ngaa mayee deret voilà sama jabar dañ ko fa yóbbu ñu ne amuñu deret yow est-ce que yow sa bopp donneur de sang kenn mënu ko jënd kenn mënu ko defar mais bu ñëpp bañee ne duñ mayee deret musiba am moo tax ñi ñi conscientiser les populations ñu bàyyi seen xel ni yow mii toog naan duma ma mayee bu ñëpp defoon ni yow musiba am yow mi toog nii naan sa ataaya wala nga toog sa néeg nag ah man de duma maye parce que damaa tuuti parce que parce que du ma maye parce man sax matalu ma yow kooku bu yëpp defoon na yow deret du am su boobaa nag musiba am. looloo tax nag tey jii nii ñu ngi sant yàlla am na ay population yu ñëw mais mobilisation bi waroon na gën a bëri nañ ko waxante waaw parce que mobilisation bi waroon na gën a bëri ñi ñëw ñu ngi leen di remercier mais xeeb nañ ko suñu sayoon mu gën a bëri mais nag. comme li ma docteur Fall wax nee na ma deret loo si am jëlal nee na ma loo si am jëlal barki dee moo Ndiaye préfet dafa organiser doo de sang ngaay yéen ñii demoon ngeen ci don de sang boobu préfet organiser ba mu ko ba mu koy organiser hôpital bi amul toq deret mais sa guddi ga accident bu metti am diggante ngaay ak ba ñetti nit ñàkk seen bakkan lu mat vingt personnes blessées don de sang boobu préfet def est-ce xam nga ni don de sang ba préfet ci lañ leen ci lañ utiliser deret jooju kon imagine toi préfet organisé wul woon loolu keroog te boobu hôpital bi toq deret nekk kon ñoom bu ñu ñëwee duñ fi fekk deret musiba bi gën a yokk loolu njàngat la boo xam ni ñu bëri nañ ci bàyyi xel organisé na don de sang bi tey su guddi gi accident am le lendemain ñu jël loolu préfet organisé woon fajee ko nit ñi kon nag ñu ngi ñaan population yi ñu bàyyi seen xel ni deret kenn du ko defar kenn du ko jënd kenn du ko jaay doomu aadama mooy am laabiram def ko ngir sauver nit ngir yàlla loolu daal moo taxoon ñu woote tey actuellement nii ñu ngi ci ay euh, cinquante huit poches di espérer dina egg soixante wala mu egg cent parce que nit ñaa ngi ñëw euh, ñu nekk ci biir service yi ñu ngi génn mais aussi population yi am na ay personnes yu ñëw voilà donc mi ngi noonu quoi ci loolu lañ tollagul en attendant. état d'esprit la état d'esprit la sénégalais sénégalais maye deret bokkul ci ay activité am nañu waxante dëgg ku si ne rek xool ko sa bopp sénégalais coolee fi ne mais maye deret bokkul seen activité pour ñoom yow sénégalais bu ne yaa ngi naan sàmm ma sàmm mële moo war a maye yow dañ ciy génne sa bopp quoi. voilà loolu la bon et puis c'est culturel c'est psychologique c'est social bokkul ci suñu aada deret dafa doon loo xam ne pour un africain particulièrement un sénégalais euh, deret dafa dafa dafa dafa am lu bëri lu muy def si nit si si en si africain am na ñoo xam ni duñ duñ neen duñ génn seen deret voilà seen deret bu tuuroo lii moo am ay problème mystique yu bëri si wax am nous sommes en Afrique voilà euh, je pense que euh, war nañu mën a def ay politique yoo xamante ni dañuy imposer nit ñi ñu maye deret comme en nga xam ne yow citoyen bi si année bi dinga nga maye quatre fois par force soo ko mayewul dina am lu mu lay gàllankoor ci sa wàllu impôt ak sa wàllu liggéey boo bëgg wala sa salaire loolu war nañ ko def Sénégal euh, ñu fexe ba yow at mi daal di nga maye ñeenti yoon mu am benn carte boo xam dañ la koy laaj ci at mi boo ko joxewul ñu yóbbu la nga fayee impo parce que loolu rek moo ko mën a maye parce que coow lii communication bi yaa gis jàll na nit ñi def nañu ay séminaire CNTS wax nañu mais ba léegi mentalité bi changé wul sénégalais yi duñu ay maykatu deret ndax boo jëlee population un million ñi ciy may deret matul sax un pour cent waaw boo préfet daal moom maye na deret macha allah parce que préfet bërki démb la la maye deret ah yeneen autorité aussi <laughs> préfet moo représenté état kon yeneen autorité waroon nañoo mën a ñëw maye waaw le fait que préfet summeeku maye dafa am lu mu wane parce que moo fi représenté état moo fi représenté président de la république kon yeneen autorité yi waroon nañoo mën a ñëw mais suñu wul sax ñoom ñu organiser chaque trois mois autorité bu ñu ne nga organiser dajale sa militant xaw ma affaire yooyu nga nga nga am ca sax cinquante poches ah mais boolewuñ ko seen activité bon en fait des fois boo ñu def parce que fii am na ñu ko fi def quand même mais bariwul voilà bariwul. su dee yow da nga koy organiser benn yoon ci ñaari at loolu taxul ñuy wax te tey ji nii li ñu fi indi ñu demaatee ñetti weer mu jeex il va falloir que nit ñi di ñëw beneen bi moo dinaa ko jox don de sang bi chaque jour banque de sang bi dafay ubbeeku maanaam képp koo xamante ni yàlla def na nga war a mën a ñëw boo ñëwee fii rek mën nga maye sans pour autant ñu organiser comme journée tey bi quoi donc nit ñi mën nañuy ñëw di maye à chaque fois que de besoin di ñëw di maye parce que yow deret ji ngay maye xamoo ku muy sobe sa mbokk ak keneen mais kii ko sauvé tamit xamul ki ko may te boo mayee am na avantage bu si ne tey jii boo defee don de sang dañ lay defar analyse génn ci yow lépp loo xamante ni feebar ba pare dinañ la woo faj la ko analyse yooyu nga waroon fay ay cent mille ay quatre-vingt-quinze mille c'est gratuit bu ñu gisee si yow leen luy menacé ñun la eh ñëwal gis nañu lii léegi demal def lii hôpital faj la ba pare doo fay analyse bi avantage bi mu ngi si nga am sa groupe sanguin donc mu ngi noonu am na ay avantages yu si ne. masu coono yi nga xam ni moom la ñu daj ci suba ak léegi. waaw tey ñu ñëw fii si hôpitalu Abdou eh, maam Abdou Aziz Sy Dabakh ànd ak suñu mbokk yi ki nga xam ni mooy Pape Demba di conseil départemental de la jeunesse PDS responsable euh, Croix-Rouge ak Cheikh Abdou Khadrou Djeylani moom mi nga xam ni wax dëgg yàlla ci wan loo lu lu lu xew ret lu mu mënti doon ret dina fexe ba jàpp ci kamtulaay kàttan tey jii nag semaine yi passé ñu dégg ni hôpital Dabakh dafa am pénurie euh, sang donc ñu ni pourquoi pas ñu jéem a organiser wu biñ ci directrice woowee ñun tam aussi amuñu lu dul waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ñu wër bi ñu waxtaanee ak ñu ñu wër ñu ni ah kon nañ jàpp la dat du 11 incha allahu rabbi mooy datu tey bii nii ñu remercier nag donneur yi nga xam ni jaar nañ fi tey jii parce que dañ ko ànd ak euh, ki nga xam ni mooy ANDOBES mooy association nationale des donneurs bénévoles de sang donc euh, ñu ñëw fi appuyer labo bi nga xam ni moo amoon pénurie bi tey jii sant nañ ci yàlla ndax la préfet du département moo ko njëkkee ndax samedi bi passé dem na ngay organiser wu jële fa macha allah loo xam ni fii ak ñaari weer yàlla mën nañoo defal sutura du ñaam problème mu sang ah kon tey jii suñu ñëwetee tey jii amaat lu ni mel wax dëgg yàlla dañ ciy sant yàlla parce que euh, comme ni ko docteur Sakho waxee rek lu mu dee dee dee nit ñi war nañoo mën a jaamu yàlla si hôpital bi pas yow ngay toog rek di xaar li may li ma hôpital di defal mais dafa am loo xam ne yow yaa ko war a delloo hôpital lan nga war a delloo hôpital mooy hôpital bu soxlaa nga jimbali ko jàpp ci te yàlla tax te ku ni xam na ni deret kenn du ko jënd te ku judd am nga boru deret ku judd ret am nga boru deret ndax euh, di mucc tey ji am na loo xam ni def nañ ko si moom loolu ñu ko def si moom nag jënd ko te kenn mënu koo kenn mënu koo wut docteur mënu ko defar ci doomu aadama lay jóge looloo tax tey jii ñuy woo population Tivaouane ñuy bay ñii di am parce que su amee rek tiitaanga la indi ci médecin yi parce que imaginel tey jii malaat boo teg bloc ngay xaar ay mbokkam ñëw pour kenn ku ci ne war a génnee jox ko mais mën nga woo mbokk yëpp te du compatible nga gis benn waay boo xam ne mu ngi si biir hôpital bi ab médecin la nga woo ko mu ñëw fekk moo war a may kooku noonu kon donc nit ki à chaque fois war nga toog 4 mois yu ci nekk nga xalaat ni ah banque de sang bi de war naa faa mën a jaar pour maye sama deret bii nii te boo ñëwee aussi nga fekk fi ay technicien te doo ñëw rek tamit aussi ñu ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay jëlal sa deret balaa ñu laa jël il faut ñu xool la ba pare su fekkee apte nga pour jël ñu jël sa deret bu fekkee ab doo aussi ñun la demal nga faju wala nga dem jël nangam ak nanga donc importance bi nga xam ne am na ci don de sang sama mbokk Petit Dame que ñoo bokk kuréel gi ñoo si yëngatu boobaay léegi yàgg na peut-être moom dina wax importance yi nga xam ni moom la deret am si doomu aadama mu koy joxe. donc loolu duñ ci duñ si guddal dañ koy bàyyi moom Mouhamadou Dame Seck bu amee loo xam ne war na koo mën a jox askan wi ñu xam ni kat vraiment lii non seulement da ngay mais da ngay fajuwaale tamit. bu ko defee euh, PDS ñu jox la kàddu gi. waaw loolu namit euh, question bu doy waar nga posé parce que Tivaouane dañoo am loo xam ni vraiment doy na waar euh, man mënuma concevoir man tey jii su ma waree jóg ñaxtu woo ñëpp kenn ku ne wax dégg nga am na ci loo xam ne yow war na la kaa mën a jaral lan moo lay jaral mooy ñi nga xam ne dañuy am jafe-jafe si biir hôpital bi ñu woo la parce que dinaa ci jaar ah, parce que bëgguma si woon a jaar ñu bari wax nañ ma ko semaine bi nga xam ne li xew Tiwaawan xew na ci man def naa benn vidéo di maye deret ci semaine boobu noonu appel à que ñu ñëw may suñu mbokk yooyu deret mais kenn ñëwul kon nit ki yow ba gannaaw bi nga juddoo ba pare ah lan moo la war ci askan wi est-ce que da ngaa war a nekk ci askan wi di kaas est-ce que da ngaa war a nekk ci askan wi fu nekk nga def fa lu bon est-ce que est que est-ce que donc tey ji appel bi ñëpp jot nañ ko ñëpp dégg nañ ko mais lu luñ ci am dañ ciy sant yàlla bu ñu amee cinquante dent poche sant yàlla la donc am na ñeneen ñoo xam ne taxaw nañu aussi pour bëgg a ñooñu aussi ñu ngi organiser wu pour journée yii di ñëw incha allahu rabbi ñoom tam dégg nañu appel bi mais comme ñoom jàpp nañ seen date ba pare ne war nañoo mën a ñoom tam organiser ñoom tam aussi dañ leen di bàyyi ñu organiser parce que li nga xam ni moo jaadu. tey ji su ma sañoon gis naa fi ay mbokk yoo xam ni keroog ba ñuy kaas taxaw nañu kaas mais tey jii ñëw nañu joxe seen deret bu fekkoon tey jii mouvement bu ci nekk tey jii boo waree jóg pour pour pour pour euh, xeex ah tey mouvement yooyu ñoo ne ah tey de am nañ lu ñu war gars yi lan moo ñu war mooy nañ dem banque de sang ba xool ba xam est que réellement sang am na fa comme ñun démb ñoo taxawoon di ñaxtu kon tey li ñu war mooy dem xool hôpital xool malade yi yan condition la ñuy dund parce que gis nga am na wax yoo xam ne boo koy wax aveuglement da ngay nax sa bopp malade am fiche fiche boo xam ne fiche de suivi la fiche de suivi boobu noonu yow bu fekkee da ngaa nekk ci àll bi xamoo lu xew hôpital ñëwal dugg biir si bureau yi ci saal boo duggee ci saal dinga xam ne malade bi ñu ngi koy toppatoo comme ni mu waree kon am na si loo xam ne Tiwaawan ñu bàyyi xel hôpital maam Abdou Aziz Dabakh ñu bàyyi xel alaaji Abdou bu baax a baax a baax ba tax na du du ñaaw ñaawteef yëpp ngay wax taxaw di génne déedéet dafa am loo xam ne xoolal ñaata malaat la ñuy la ñuy dimbali par année ñaata malade ñooy mucc par année lii nga xam ni mooy ndogul yàlla bu ñëwee na kenn mënu si dara waaye xoolal lii mucc par année su ko defee nag euh, foofu lañ doon yem wax waa Tivaouane nañ ñu dimbali mu doon loo xam ni chaque fois war nañ see mën a bàyyi xel asalaamaaleykum. sauver nit je pense que sauver nit ku nekk xam na li ñu si wax. donc euh, ñuy rafetlu tamit taxawaayu organisateur bi Sidi Lamine nag personnel hôpital bi yëpp wax dëgg yàlla bu nu jaaxlee ba dem wax leen que tamit gis nañ boobu ba léegi ils boo ko communiqué là-dessus pour mobiliser pour que nit ñi taxaw et je pense que am na nañu résultat bu baax ñu ngi santaan ñëpp di sant autorité administrative parce que je pense que problème bi bi nu ko commencé sentir rek il a une dizaine de jours gis ne vraiment suñu jógul mm. affaire bi dina graaw danu jóg gis préfet gis euh, waxtaan ak docteur Sakho def réunion interne jéem a xool nan la ñuy def pour mën a mobiliser mais li gën a am solo mooy pérennisation parce que xam nga tey mën nañu mobiliser mais sans boobu du du éternelul parce que sans moom même boo ko mayewul bu dee du de vie jeexam da nga koy euh, éliminer donc dañuy bëgg rek population bi xam ni maye tey taxul ne da nga war a mayewaat dans trois mois képp koo xam am nga aptitude bi vraiment trois mois yu nekk mën nga joxe rendez-vous ak hôpital ñëw maye benn poche ne xam ni sauvé nga nit Mhm. sauvé nga nit donc euh, te ñi ngi jëm ci ay événement màggal gàmmu mhm. donc nawet bi tali yi duñu duñu baaxuñu ruu tali ruu yi baaxuñu gis ngeen accident yi fi am fan yi mhm. donc daal ñi ngi ñaanal ñëpp daal ñu gën a jàppale euh, ñi nga xam organisateur collecte de sang yi pour gën a mobiliser képp koo xam si mën nga mobiliser ASC yi association culturelle ñëpp daal ku mën a mobiliser rek nga mobiliser man daal sama kàddu foofu la doon jëm di santaat di gërëm di gis taxawaay bi aussi di am yaakaar aussi que ni dinañ gën a mobiliser pour que vraiment disponibilité bi sang bi nekk loo xam si dafay euh, am de façon permanente ñu ngi sant di gërëm. madame Badiane docteur Binta Diop directrice hôpital Tivaouane. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mouhamadou Seck nekk responsable à la Croix Rouge. Euh, waaw ni ko président dem ba waxee ah euh, ñun dañu ñëwoon tey pour participer ci activité bi nga xamante ni moom moo nekkoon don de sang bi nga xamante ni dañ ko organiser parce que dañoo gis ni. Euh, banque de sang bi dafa commencé am benn problème mu ne am naanaam am pénurie boo xamante ne daf fi daf am te deret ju manqué moom ëpp nañu sax di ko di ko di ko di ko gis parce que li mu war a mën a jur dafa bari léegi comme ni ko président waxee parce que may deret dafa nekk loo xamante ni solo si nekk si ginnaaw ñu bëree bëri ko malheureusement parce que nit ñi dañoo yaakaar ni boo mayee deret dafa nekk loo xamante ni yow pour nga amaat deret dafay metti day compliqué pour nga amaat deret am ñoo xamante dañoo yaakaar ne suñu mayee deret ba pare Euh, euh, dañuy jaay deret bi am ñoo xamante ne dañoo yaakaar ne bu ñu mayee deret ba pare après li nekk sa ginnaaw maanaam dafa am préjugé yu bëree bëri yoo xam ne daf see am alors que loolu il faut nga dem fa ñu mayee deret dëgg-dëgg pour nga mën koo comprendre c'est vrai que ne am na communication buy am si ginnaaw parce que population aussi du tout le temps dafay dem di uti communication day di di comprendre liy xew mais dafay baax ngay dem di ko fekki aussi di wax ak ñoom moo tax bu ngeen laaj si loolu dañuy sawar toujours di si wax il faut ñu comprendre que ne lu jëm si maye deret nit ki bu mu yaakaar ne su mayee dootul amaat wala bala moo amaat day yàgg déedéet te loolu am nañ si benn exemple boo xamante ne exemple bu patent la nit dina dagg ñàkk deret du baree baree bari te kenn du ko mayaat deret te du dee dafay continuer di dund te deret boobu mu ñàkk daf koy amaat parce que li nga xamante ne moom moo koy dimbali sa deret mi ngi si yaramam loolu moom mooy mën di defar ba nga xamante ne lu mu ñàkk si deret su fekkee loo xamante moo xam yenn dagg-dagg yi la dina mën di amaat parce que saa bu ñu waxee ni nit soxla na deret ça veut dire que nit lu compliqué lay nekk nekk na si état boo xamante ne deret ji mu ñàkk bari na bari boo xamante ni il faut ñu mën koo mayaat pour mu am donc loolu bu nit ñi di yaakaar ne man li may dem mayee parce que aussi hôpital du wax nit ñi may leen deret ba pare xam ni day nekk conséquence bu bon bu ma mën a am si nit ki saa bu waxee ñëw leen mayee ki nga xamante ne day mayee moo nekk le président de wax de ku ñu seet la dinañ xool tension dinañ xool ba xam moom mii kat euh, euh, lu mu fanaanoo yooyu yëpp dafay nekk loo xam ne lu am solo la donc population il faut ñu xam ko xam aussi leneen li nekk si ginnaaw maye deret parce que ki nga xamante ne dafay yaakaar ni su mayee euh, dañuy jaay deretam yàlla xam na ne lañ si nit ñi di defaat bala ñuy jox nit ki deret sax dafa bari parce que képp koo xamante ne maye nga deret ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk labo wala ñoo waa hôpital bi dinañ si defaat xaalis bu bare baree bari bala ñuy jox nit ki nga xamante ne moom la soxla deret loolu mu nekk loo xamante ne lu am solo la nit ñi war a mën a comprendre du question que ne damay maye ma paree après na lay demee déedéet liggéey bi si ginnaaw moo ëpp solo te beneen importance bi am si maye deret moom moo nekk lan non seulement yow mi nga xamante ne maye nga deret di nga boo demee ba nga xamante ni soxla nga deret parce que bari na ñuy maye deret ñoo xamante ni bu ñu demee hôpital fayatuñu lu bari wala fayatuñu parce que seen carte mën na leen dimbali si lu bari biir hôpital am si ñoo xamante ni bu ñu demee ba nga xamante ne maye na deret analyse dafa cher. am na si ay analyse am na si feebar yu bëree baree bëri yoo xamante ne li la ko li la ko war mën a mën a jox dangay fay lu li la ko war a mën a génneel sa yaram da ngay lu bëri pour ñu ne ah ok yow kat xoolal nañ la def nañ analyse bi gis nañ ni am wala amoo lii alors que saa boo mayee deret dañ koy saytu mooy lekk li ma wax mooy dépense yi nga xamante daf siy ñëwaat après pour ñu xam deret ji lan lan moom moo si nekk lan lañ si war a mën a dindi nit dal na ko lii dalu ko alors que loolu doo fay dara te dinga am yooyu information di nga xam ne ah man mii kat lii mi ngi sama biir yaram day nekk loo xamante ne lu am solo la donc maye deret nañ xam ne li si ginnaaw moo ëpp solo téeméeri junni yoon jëf ji nga xamante ne moom ngay def donc encore une fois dañu woo la population na jug di xool nan la ñu war a mën a taxawoo la population maye deret dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ni ñi dañ koy soxla tey xam nga urgence day toll foo xamante ne am na loo xam day bette kenn xamul yenn jiyee buy am nan lay ñëwee fu muy juge donc day baax nga nekk en réserve am loo xamante ni au moins saa bu ñu demee ba kenn ñaanu ko yàlla jéeyee am na loolu bu ñëwee bu soobee yàlla dina mën a dimbali nit ñi ba ñi nga xamante ne si tàng-tàng soxla nañu ñu mën leen a jox donc encore une fois yéen population bi yéen ñëpp ñu ngi leen di woo fépp fu ngeen dégg don de sang ngeen dem même bu ngeen ko déggul parce que président dafa koy wax góor dañ lay wax ne la si at mi mën naa maye ñeenti yoon jigéen mën naa maye ñetti yoon góor par trois mois jigéen par quatre mois donc loolu dafa am solo te docteur daf koy wax sànq ñetti am weer yu yu jot sa yaram bi deret ji dafay changé li fi jotoon a nekk dafay dee am yeneen yoo xamante ne moom mooy judduwaat mën a nekkaat sa yaram donc loolu dafay am solo ngay dem di maye bu ko defee ñu mën di defaraat loolu di ko mën di di di analyse di ko mën di saytu jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soxla kon yéen ñëpp ñu ngi leen di woo bu soobee yàlla saa bu ngeen bëggee ñëw maye buntu ba yaa ngi nii tëjuwul lundi ba vendredi nga xamante ne mooy jour ouvrable ab urgence bu amee chaque jour ñu ngi fi mais lundi ba vendredi bu soobee yàlla képp ku mën maye bu incha allah ñu lay woo nga ñëw maye incha allah ñu mën a jariñ askan bi yëpp jërëjëf. sonaleel ci ñun li tax ñu wax ko Dodo Samb moom fu ñu ko dégg fu nekk buñ la woowee ak buñ la woowul yëpp war ngaa def ak de présence raison pour laquelle da ngay sauver ay nit te sauver nit wax dëgg yàlla ku nekk xam ne li ci yàlla suñu borom wax. bakkan boo xamante ni mu ngi ci diggante dund ak dee nga jël sa deret jox ko yaakaar naa ne sauver doomu aadama la te beneen bi amaat ki usé xamoo kan moo koy jëriñoo waat yow da nga ñëw rek def acte maye mais ki koy jëriñoo ëllëg xamoo kan la mën na nekk sa papa mën na nekk sa yaay mën na nekk sa doom mën na nekk sa mbokk xamuñu moo tax appel milieu soo ko soo ko soo ko déggee ci dëkk li la war mooy nga dem joxe sa participation comme ni ñu koy waxee peut-être léeg-léeg ñun ndaw ñu laaj lan lañ ñuy defal mais ñun na tamit lan lañ defal tamit aussi population bi dana am solo ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy accentuer di ko wax ni ñu di ko dégg que ne tey bu ñu wootee appel bu mel nii comme ni nga waxee sànq dëkk bi yëpp war nañu mën a mobiliser wu ñëw joxe seen participation mais nag aussi du ñu xeeb li ñu am. que ne benn sax bu ñëwoon tey joxe deretam dinañ ko sante suñu borom parce que xam nañu kooku am na engagement ñoo def li mu war mais bu ñu sañoon comme ni ko Demba waxee dëkk bi yëppay ñëw population bi yëppay ñëw maye parce que ki ko soxla ëllëg yoo xamoo kan la doon te Tivaouane dafa nekk département bu yaatu te bu ñu jàpp ne ñun waa Tivaouane kese kese kese kese li ñuy maye ñun ñoo koy jëriñoo parfois mën naa am nit jiggaane ci àll bi ñëw fii soxla ko ñu mën ko koo jox moo tax je pense di ñëw de ce que don de sang moom yemul tey ku ne xam na ne màggal ngi ñëw gàmm ngi ñëw événement religieux yooyu dañuy soxla deret bu baax a baax yàlla na jàmm yàgg ci tali bi dëgg la mais événement yooyu de am nga bàyyi ko xel ba bu ëwee ba la bett day am solo moo tax ñuy wax waa Tivaouane yëpp population bi yëpp muy mag ndaw góor ak jigéen yëpp bu ñu dëggatee lu mel nii ñu ñëw joxe seen participation di remercier tamit vraiment encore une fois Demba ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekk au devant de la scène par rapport ak activité bi parce que tamit aussi def lu mel nii yombul acte citoyenneté dëgg la di remercier le préfet mu ngi ci initiative yu mel nii barki démb def na ko ngaa am a na solo macha allah yal doole jàmm et ensemble le travail continue comme de l'habitude. maaleykum salaam eh, Xasim ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa GPTV donc euh, Cheikh Abdou Khadir Dieylani Dieng euh, ñi ngi ñi ngi nuyu population Tivaouane yëpp après que suñu frère Demba Demba Thiaw initiateur ak euh, Petit Dame Seck de cette journée de don de sang après comme li nga wax léegi ñuy teg suñuy kàddu rek ci tàggu kàddu président conseil départemental de la jeunesse l'appel a été solennel comme ni nga wax léegi vraiment en amont population Tivaouane yëpp jot nañ ci donc tey euh, rëcc lañ fi waroon gis euh, mais dañu wax ni euh, sant yàlla parce que chacun de nous a des responsabilités et aura des responsabilités devant Dieu et les hommes loolu nag suñ ko waxee mooy Demba Seck wax na ko sànq ak le président Pape Demba wax ni balaa ngay wax laaj liñ la war a defal li ay say wareef defal yow say say wareef donc loolu moo waral tey ñu initiateur journée bi tey sous la coupole de du docteur Sakho Euh, chef de des laboratoires laboratoire de l'hôpital Mame Aziz baax ak madame la directrice euh, ñëw accompagner euh, les organisateurs Demba Seck Thiaw ak Petit Dame donc ñuy wax ni rek après xaasim li nga wax ni dafa am solo mooy que ni population yëpp jot nañ ci mais le pourquoi rush amul parce que on pense que ni y une communication bu war a dox entre population Tivaouane ak personnel médical hôpital Mame Aziz baax donc euh, c'est là où ça fait défaut mais dañuy sant yàlla parce que tey bu ñu amoon benn poche rek on se on allait se dire que yàlla y a le sens du devoir accompli euh, mais li ci am solo li ci am solo mooy ku ci nekk xam taxawaay bi bi war sa digganteeg nu Tivaouane euh, xam sa taxawaay bi war sa digganteeg hôpital Mame Aziz baax naam foo dem dina dina am ay manquement parce que dañuy wax ni téeméeri jur benn yar donc téeméeri nit ku nekk ak yaram téeméeri yar donc il faut que ñu nit ñi delloo seen xel xam ni euh, la santé est une chose primordiale mu nekk loo xam ni mënul ñàkk ci dundu doomu aadama donc il faut que ñu xam ni dafa am lu ñuy lëkkale ak corps médical yi muy métit bi ñuy yëg ku ci nekk ci ñun ci sa yaram li ñuy def ne rek njëriñam mooy ki koy jëriñoo doo ko xam donc maye deret dafa nekk lu lu lu lu jaadu dafa nekk obligation pour tout citoyen donc euh, mu nekk loo xam ni euh, nit ñi dañ koy soxla donc tey bu ñu demee ba dégg ni banque de sang wu hôpital Mame Aziz Dabakh am na pénurie maanaam ñàkk na deret ci ñi nga xam ne jàkkuñu tubaab. li nga wax nii par exemple pour qu'il y un programme il faut qu'on communique euh, pour qu'il pour qu'il y ait adhésion adhésion des populations il faut qu'on communique donc mënuñu ñu def leneen lu lu communiquer mais dans diverses formes dans diverses formes il euh, y a une réunion qui a été tenue dans l'improviste euh, ku ci nekk ci ki fa ñi fa daje maanaam kenn woowu la donc euh, bis bi ak solos bis bi moo ñu yëkkati ñu daje donc c'est sur cela qu'on a pris l'initiative d'aller voir le préfet du département après que le corps médical de l'hôpital Mamadou Dabakh ait tenu un programme avec la préfecture ñun li nga xam ni moom lañ ci war a dolloo que ça soit Demba Seck Thiaw Euh, Petite Dame le président du conseil départemental de la jeunesse Pape Demba Dia ak ñun ñi nga xam ni dañu nekk par exemple les forces vives de Tivaouane maanaam euh, ku ci nekk sa taxawaay daf ci war a nekk lu am solo xam nga dama ko wax sànq ma ni su nekkee xaasim da ngay woo nit mu wuyu si la donte safaan moo ne ci ginnaaw mais nit ki li koy li koy amal solo mooy ki koy ki ko woo donc loolu ñun ñëpp dañ ci war a dañ ci war a jafandu mu nekk cëslaay bu nga xam ni par exemple dañ ciy basé wu pour convaincre les populations à venir donner de leur sang parce que nag euh, maye deret njëriñ ci sa bopp la mais njëriñ ci saw askan la te yaa ngi koy joxe mais xamoo ko muy jëriñ xamoo ko muy jëriñ